xam man mii de sa nijaay doxuma ci dara lu ñàkk fay yoon laa la sa sëy ndax sëy du jaaxaan vrai que nous en tant que parents on gis nga lii ma def bu doon tay tay tay. dama koy defar. bu dee looloo tax nga jóge sa kër ñëw jaru ko woon ndax du ma la mës may sa baat. eh merde man du ma yow réew nga ah. yee na màggandoo yee na ku koy wax dëgg kuy dellu si xelam nit ku ne am na ku koy jubbanti saa yu réeree fàtte li ko war yee na màggandoo Excusez-moi, mesdames. Ça va? Moi, je pensais pas que y ait nga boutique. <laughs> pour moi, au goût gi rek ngay fonctionné ah Le waaw. fort, bëgg ok je vais pas passer par quatre chemins je vais être direct avec toi wax ma li je vois la voiture derrière c'est à moi j'ai une grande maison ici wax ma lan nga te laisse le soir nga proposer prix bu la tu payes après ñu gérer. eggali rek da nga bëgg a wax ne man caga laa. je voulais pas le dire ainsi hein parce que moi je respecte la gente féminine mais comme waxal nga ko sa bopp rek cool waxal sa prix ñu eh. gérer. gis nga soo sa caga danga koy uti ci mais pas man du ma sa morom na njëkk tey na mujj tey ma lay romb nga may. xool bay am audience taxaw sama wet di wax waxi ca moowu caga est-ce que yaa may dégg da nga yor xaalis xam nga fi caga nekk nga dem fekk leen fa est-ce que yaa ngi dégg te bu mu amati yow ku yabaate nga. waaye sama géer namm naa la de. bilay maa la raw. namm gi ma la namm moo tax damaa xëy suba teel xaaruma fa ndékki xaaruma fa dara ni yow rek. déggal loolu. si li ko faraanoo barki damaa tuba jël sama xel bu sama géwél dama eh, bi ma am rek moom ma koy dindil xoolal lii rek. moo tax ma ñëw de. <laughs> yaay sama géer de yaay sama géwél de. waa na suñu doom ji. kan xam nga ku may laaj. mooy ku baax ki. tey ki yaro am ngor jullite xam nga ne kooku laay laaj. taw jigéen boobu. waaw dimbala ndeyam. kooku mooy sama sauvetage dañ ne doom boo lay nàmpa da koy xool waaye ba ma koy nàmpa damaa na jàkk xool ma xale boobu mooy sama sawetaas jooyu ma baayam te nomb ma dara lu ma am soo ba ngoon moom la damay jox liggéey di wàcc ñëw jox ma yaay añ nga yaay reer nga toog sama wet lu ma am moom la dama koy ñaan kay. yalla may ko borom kër ak jamm amin yow lo mën ñaanal ma. wa ana ka ca dess waaw dimbali ma gis man géwél boo tudd rek sama yaram bañ koku amu amu mom ben affaire bu guddé dal mom timis lay bañ demna leen nga gis ko fi su ñëwé da heure bi teddina su ngone mu solwaat dem jaay bopam boppam daal hamburger la ko def loolu si xamut hamburger la tuddu xale yi hamburger lañ ko woowee. hamburger. mo luy hamburger ah li xale yi fawé <laughs> xale yi de lu ne ñu ngi wax. hamburger xam nga ba même bi fi sax xam ko xale yu góor yi xale yi hamburger lañ koy woowee. hamburger hamburger. sama kër yàqu na. ay waay sama kër waay. ah la de la de. ah nga jëndee ko kër gi. man daal yooyu moom ma ci naree fekk ma jëndee ko kër gi. ay géwél déet jël tamit. ñu ngi def nan lay def ba ci yoon rafet la sama kër gi bu di mel mu mel. yaayam sëy bu rafet la fa sëy yaayam ba léegi damay yónnee xaalis ba léegi damay yónnee xaalis waaye xoolal léegi mu jeex ndeyam léegi mu ñëw su ñëwee mu def abal ma su ñëwee rek mu abal ma. xam naa ne balaa di yaayam di ñëw de kon de xaw ma foo jëm. yaayam ñëwee rek mu ñibbi. waaye kon kon noonu nga ko gisee. ah kon baax ma man nag maa ngi ñëw yegg kër ga. xam nga ni kër ga dara newu fa gay dóor man ak ma daan dóoree dégg nga may tamit dama nan namm nam ma namm may tamit nga bëgg a dem namm naa la nam sa loxo yow doo saase namm sa loxo bilaa do saase ay ma sa nga yendul ma ay wa bàyyi ma yem ba benen ay tamit mën nga ma yendul ah mo jinne ngi di ma yow lu jinne la la la ay waay jinne ngi way ay way jinne ay waay géwél bi xam nga nu may def maa ngi yëgg kër ga dem marché déggal géwél maa doon gëj maa ngi dem marché waaw bu mu gëj nag fi gëj bu gëj sama xarit ak baax nga la kay waaw wax nga dëgg wax nga dëgg naa ne mooy am waaw maa ngi lay laaj ci sànq ñu ma dangaa génn foo demoon waaw dama génnoon mais xam nga sama xarit bi ma nekkaloon bitoo pap waaw dama demoon seen kër nag pour quelques bagages mu yóbbu noonu jabaram instant bi nag yaay xam na dama sonn mu bëgg reposer tuuti. déedéet toogal ñu waxtaan affaire jabar boobu ñu doon waxtaanee naa yow loolu laa bëgg ñu dëggal ko xam naa ne man ki ma la bëgg boo ko takkee di nga am xale di nga am xale bu yaroo yaroo yaru am na diine am na lislaam macha allah am na yar. comme li la waxoon rek def baax parce que yaay dama bëgg ma delluwaatee bitim réew bàyyi la fi koo xamante ne da ngay miinante ak moom doolu am benn problème li ko woon sax nga may tàggu defal lo neex. ah lii ko gën a jafe xale yi léegi xale yi ko ci wax jabar mun la may sama nga de waaye ñu ah macha allah li moom na de waaye inshallah dina ci taxaw legui na dama bëggoon nga dem fa su demee nga xol ko sa bop té xamna naa di nga contane nak hmm. lépp lu ñuy wër jigen ma nga fa di nga fa fekk. ba na ko defee semaine bi su ma féexee après man euh, nga jox ma contact bi man fa dem. semaine suba suba kay. Hmm. yow lu bax boo defal ci gaaw di. <laughs>

dama la soxra isan ta isan waru xaar dafa am sama benn way bu jógee dubai indi xaalisam bu weex tàll te yow mi laa ci gis VSD la soxla. la VSD ak man mii xalaatuma ko xanaa yow da ngaa bëgg sama yaay rey ma sama yaay dafa xam ne ma damay liggéey liggéeyu fanaan su bëggee journée moom d'accord naa mais fanaan xalaatuma loolu. jànk yow kañ ngay lox li tiit xanaa yow xawma la en tout cas xam lan la jëlal mbaa ma jox sa morom. joxal keneen te suñu kër bu fi ñëwati ak sa lu bon li nga sol jóge nga dem. yow ya gëna bon ñep ma ngi yow nañ bu baax. xalaatal ci luma la wax. Amina démb la moo nga génn si bar bi taw woowoo ma. sama téléphone da fayu en plus dem dañ ma ramasson ramas ya xewi ani sa pièce bo dama ko faté won ci bir kër gi. Amina xam nga sax légui lan lañu def. liggéey baar bi ngay arrêté. Talla tout sauf ça man dama di jigéenu ñàkk tedd li nga am dama koy bàyyi ak yow moo gën ma koy bokk ak yow. mais Amina xanaa di gisoo sama der bi ni muy yàqoo si dëkk wi Talla sa der bu yàqoo benn man sama der yàqu na ko fukk nit ñi nag bàyyi leen ñuy wax rek. mais Amina léegi sax xam nga lan la ñuy def bul génn tey bul génn seen kër te xaaral ma ñëw yóbbu la si baar bi. d'accord amul